tey dafa mel ni yenn jeunes yenn jeunesse bi focus leen trop ci international c'est-à-dire tey amoo defoo leen link pour am ay featuring yenn yenn yenn maliens yi wala guinéen yi wala mauritaniens yi wala yeneen dëkk yi parce que dañoo gis ni que da ngeen focus trop ci Sénégal. macha allah posé nga Maria question bu neex moo tax ma lay suivre parce que da nga garaaw <laughs> Euh, Ria Sénégalais dañu war a sant yàlla. Hmm. ah dañu war a sant yàlla parce que yàlla na yéex bis bu àdduna tukkee Sénégal dina bokk ci waaw ñuy njëkk a dugg àjjana ci kàttanu yàlla. lu tax nga wal lool. waaw parce que sa question lay tontu nii ah. ok. musique internationale Sénégalais dañuy jug di ñu xas ñun artistes xoola ñagi ni ñuy tojee àdduna xoola américain yi pourtant ñu dara ñun ñoo dàkk way ci àddina wallahi ñu dara mais est ce que banana piso man nga ta ku ta nda pare te du bu da pa da ñu xew neena ñom ñoy international way bi jaayu len lu len di jaay clip yi ñi def ok wane taatu jigen awra jigen ke manam demi porno la ñuy la def seen clip bi loolu moo leen di jaay xolo benn Rihanna lu muy sol xoolal benn Beyoncé am na jëkkër xoolal li muy sol boo déggee anglais ne xam ne ñii wayuñu fi dara. ah mais bul wax loolu. parce que euh, gis nañ ni que Youssou Ndour. écoute. icône la. non xam nga Youssou Ndour. bëtt na dem. bi muy def bi mu doon. Ismaël Lo Youssou Ndour bi muy nekkee icône ak ñoom Ismaël Lo ak yooyu. ci au niveau de l'international démb la. mais lan moo booba temps yi bobo temps yi xew ni xew musique chaque 6 mois day changé. ok booba temps même touba bi pour nga am disque d'or technique mo la koy may parole. c'est diamétralement opposé opposé ak jamono ji ni tay ok supposons tay sama tar bi moo may no mo ma aduna hmm way naa loo xam ku ko déglu jooy ku ko déglu mu gindi la boo ko génnee duñ la faale. est-ce que tamit du Sénégalais ñu ñoo bëgg ambiance. ñun ñoo bëgg ambiance non seulement boo xee ñu ne au niveau de l'international tey bu ma defee clip yi clip yi Chris Brown du def mais au niveau de l'international damay dox bu baax. mais mun nga Sénégal mais Sénégal ak sama diggante ak sama borom ak jullit gi ma doom sénégalais duñ ma ko pardonner sama doom. bu màggee ëllëg duma ko pardonné. mais mun nga def benn clip boo xam ne c'est pas ñuy sol yenn ay yenn yi sexy mun nañ sol tubéy wala sol. baax yaa ngi seetaan trace. waaw waxuma la Afrique urbaine. Mhm. bañ nag dañu trace Africa. waaw trace urbaine yaa ngi koy seetaan. waaw yi daw yëpp awra jigéen la ñuy wane. yi ñiy perse teg way dara. mais mon frère il a il a dit Wally dem na États-Unis def fa ak woykat bu waaw featuring mhm. mais bi défé clip ba pare il préfère te xam na ne loolu bu génnee non fi koy yobbu mais il préfère annuler clip bi pour lan dignité jullit gi mu doon ay doom sénégalais yi xa mhm. sénégalais yi duñ ko ko baal té waru wane image bobu non ok ay domam buñu ñu duñ ko ko bàyyi dëgg la tu vois donc loolu yàlla mooñ ci mooñ mooñ ci tënk peut-être bis dina ñëw dina changer yaa ngi dégg li ma wax rek moy euh benen côté mun nañ ko jaay au niveau de l'international mais lu app lu app lu ba légui duñ tolloog ñom nit américains yi niveau moy suñu traditionnel toba bi bëgg nañ ko peut-être mun nañ ci dem toj ay festival ñu wax tok mais benen côté bi il te faut nga dugg ñom ci sen gam di clip li clip di oser def ñom li def parce que boko de yow parce que ya len dak way tu chantes bien les sénégalais chantent bien mais li tax percé wuñ fofu nañ li ma len ni wax bo fi clip bi Imam Makhtar mo jamm la jamm la jamm ra ñoy la hey xalé yi pourtant musique nigérien yi sénégalais yee koy jënd ah. koy seetaan ñoo koy jënd mu neex leen mais te boo defee même clip bi ñoo lay saaga mm-hmm. tey ñu am benn mag boo xam ne mi ngi fi te mi ngi def loo xam ne sénégalais xamuñu ko sax muy waali waaw yaa danga baax nag parce que dangay wax si diw lu baax

doo ko ñaanal lu bon lu koy ñaanal lu yokk walla li mu am mm-hmm. ñii dañ naan mayib sunu boroom la ñii naan mystique la non lu mu wutal boppam dëgg la sa barke dafa solo ci doomu aadama sa nit ñi buñ la yaak boo fexee ba nit ñëpp yaakaar la këram nit ñi fay yaakaar daa fort xam nga Réa benn jour dama toog sama soxna nekkoon en état Réa yoru ma ñaar dërëm. Réa ma dox ba dajak waali xaw ma deux cent moo nekk sama poos yoru ma oto yoru ma mënuma sax jël taxi maa ngi dox.

Ah, fu mu la yóbbu. ñu teg ci une semaine ma dem va penc mi boobu temps mi ngi joué penc waaye ma dem penc bi taxaw seetaan ko seetaan ko seetaan ko xool ko xool ko xool ko xool ko bay tourné di ñibbi njaay papa Ndiaye Rambo mi ngi may dégg Ndiaye Rambo xëcc ma mu ñëw mu ne ma kaay waale boole nañ ma ne ko looy wax ni mu yëkkati xaalis bu bari jox. mais ma nee mooy sa mag réa kooku bu ma ko naree bañ ci àddina man yàlla daf may. Hmm, yàlla da lay que mënatul mënatul nekk. non seulement loolu ba pare à lui seul mi ngi génne di ko ñafante ak artiste ay moroomu artistes yu mag yu nekk bitim réew ñoo xam hmm. ni ñun yàlla mayeguñu daraja bi wala mayeguñu chance pour ñu dem rencontre. est du du. lu mu leen ëpp fit moo tax. déedéet du fit. maa daa am fit de. bàyyi leen fit kaa wax la c'est un liggéeykat la. mais liggéey mooy moo liggéey ak fit loolu la boole tay tay ba am lu mu am fit xam nga ma ñuy teg affaire bi ci affaire bu yomb il a beaucoup bossé. ok comprends nga te kuy nit yor xel di xalaat. Mhm. boo ne doo def comme moom. boo ne doo roy ci moom chaque jour ci ndaare <laughs> solo. man damay dem soirée ma taxaw ba mu jeex du ma yëg way. dëgg que yàlla may na ko dépassé ma sama mag la mu nekk au-dessus yàlla ibil ko ay buntu. Mhm. nan la jaar ba yegg foofu il faut nga roy tuuti ci moom. pour yow it mën a yegg foofu wala nga dépassé ko. kon kooku da nga koy ñaanal. Mhm. réussite ak li mu bëgg. Mhm. c'est que même ko defalul yow. mu mhm. ngi gis ay nit di leen fajal seen soxla. ay néew du doole ñoo xam ne ay say moroomu doomu aadama lañ ak fi yàlla teg doomu aadama. di leen dimbali te yàlla tax. kooku da koy ñaanal. yaatu yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu bari